ñëw ci man di laaj ak di wax ci wàllu fayu ndoxum Tuuba muy loo xam ne ñu bari ci wax di laaj ba xam ndax sëriñ bi dafa joxe ndigal ngir ñu fay ndoxum Tuuba ma leen xamal ne sëriñ bi kat loolu mësu ko cee wax ndax moom dama fekkoon ay kilifaam def ko muy dox ba agsi ci moom loolu la ko séenee sàmm nguur gi itam yëgaguma loo xam ne programme bu ñuy wax lu dul li may dégg ci rajo bi lu ñu wax ne ñoom nee nañ dañoo bëgg waa waa Touba fay dox kon nag li may dégg ci mbedd moom du ma ci tontu waaye nag comme jaadu na kenn ku ne di laaj ba xam loolu nu mu demee nu mu tëddee leen xamal ne yéegaguma programme boo xam ne wax nañ dañ koy def ngir Touba di fay dox sëriñ bi itam joxegul ndigal ndax moom li wax mooy bala ñoo tal ndox mu neex dañ fexe ba ndox mi doy ci dëkk loolu moom moo ko ci dànk kon nag loolu la ñu mën a jàpp ne loolu mooy li ci nag xay na ay wax lay doon yoo xam ne euh, xamuñ wax ji fu mu jóge wax joo xam fu mu jóge nag yaakaar naa jëru topp